ak li ko wër ñi ko doon xaar waaye yow ngay tey ah nga ma yow daal fun la fekk rek affaire lekk rek ak naan yii bii mooy ginaar teral ak soow sar bi bii dafa neex ak cerek soow bi nii ah yu macha allah waaye nag mooy tul de ah damay bañ leen daloon julul dal la nag mooy tul ah, xam nga julul fartaka bis biir bii dem ngay dem def ay attaque noonu sama douze bi <laughs> baal boobu baal ma damaa bëggoon a dugg ci douche bi. ah merci beaucoup waay. Uh-huh. jërëjëf waay bàyyi yaayam nag nit ku baax la jigéen bugg lassi lassi booy bi comme yaayam lassi lassi tab <laughs> ngel booyeen. <laughs> comme yaayam kii sax nu mu nu mu yaayam. 坐下来。waaw jërëjëf waay. jërëjëf merci beaucoup waaye mooy tu leen mango yi nag. ñoo ah ah dee <laughs> Eh, ma oh, man kii jaaxal na ma kii mën na minute bu ne mu dugg doomi man doomi jaal ji ja mu ngi may bëgg jaaxal na par par par tar a yi moom xam naa dinaa wàññi sama nag yi nag yi li ñuy lekk def bari loo liggéey xaalis nga jënd ko ay ngooñ ak ah, ripaas ak yooyu ah, doo yor dar ak jogata ay dar a gënal nit <laughs>

waaye yow demal fale ngay di def kàcc si sama euh, douze bi minute bu ne par par par elle elle met maaleykum salaam yow booba yaa bon. ala ala booba yaa soxor booba yaa iñaan. aha kañ. ñaan kay bonul. déglu booba dëkkandoo dafa màq. Ah. lu tolloog yow sa douche bii man bu ma jógee ci lay dem sama jëkkër ci lay dem ami kolle ci douche bi lay dem ah ñooxit mi ci douche bi lay dem nga diñu ko soxoree diñu ko iñaane dañ ci douche bi lay dem. ma ne jaal bi ma amoon ak bi ma am léegi du bokk duusu sagal naataange laa am. ah waaw ba ci la. duus yooyu dañoo bees pek. yee bu rey sama doom bi. xale bii bopp léegi mu ngi dugg. ah day duuru day duuru bàyyil foofu mu nekkoon. waxal sa jëkkër mu wutal la sagal naa tàngi. sagal kal dégg ko sarax mu dem sagal nan nu tudd nga naa tàngi. duus bi sagal naa tàngi. moom la laa wut. gis nga sagal naa tàngi di nga sagal sa njaboot sagal ah, sa sa bopp yàqanal sa poos wut leen boobu. waa dimbali ma rek demal demal demal. waa sarax ma bi pa mooy dernière fois demal dernière fois rek. jaal dama laa rus waaye lii moom munu ma yor say jeek utal ko say jeek kon may sama borom kër war na ma koo mën a utal léegi nag lii yomba na kay dina xool fan la mun a tudd nga ni sagal naa tànge sagal naa tànge eey na soxol sedd xanaa ñun kay fu nu mun a amee loolu war ngeen ko am na soxol sedd ah. jërëjëf ñoo xi raxasool ndox ak saabu de ba sa loxo set wecc dama ne la gis nga boo mu utul ci gu sagalu uh, boobu be sagal naa tàng boobu be li ma la ah, waxoon rek waaw bul yeggale dama ne dama koo bëgg ndaxte maa ngi dem tey ànd ak ñoo mu toroxal ñu toroxal boo xam ne maar day taali dama ne la gu sagal naa tànge laa bëgg sinon rek déet bul yeggale waa sagalu naa tànge fu mu am boo demee laaj ko boobu ne la wax fu mu am nañ dem kon mu wax ma ko ayca man kay naa tëg bët rek xam nga ne yow loo bëgg yàlla nay jàmm ah bul a man nañ naa dem ba ma teg ci bët rek sagal naa nga xam ne waxuma dara waaye yow dégg naa dafa baax ba pare set day set ba pare wenn weñ bi kër gi di set wécc ba pare di xeeñ du xeeñ di def dara. yow kay nee sama jeeg yëpp am ci. ma ne nañ dem ba ma ba ma gis ko rek kay man. Hmm. ngare ngare ngare ah. ngare njéere ah. ah, sagal naataange. lii mooy sagal naataange mu ngi nii sagal sa bopp sagal sa njaboot sakkanal sa poos. <laughs> mu ngi nii de ba pare nag jàngoro benn dara. voilà doo am benn jàngoro. ndaxte dara xeeñul. xay lépp a set. xay dara damaa gisul benn weñ sax. amul weñ amul dara set wecc. may dig ma ci wutal wala doo ma ci wutal. ah bañ a wutal. Ah. ah waaw ma ne ana ana foos yi. Ah, ah, argaay ombon. nii bii la ñuy utiliser. te li nga xamul nag mooy foos yi ñaari foos la bii ak bii bu bii demee ba fees dangay ñëw fii nga yëkkat nga fat bii bii commencé dem bu demee ba bii fees day fekk bii nag décomposé wu na waaw moo lay won ne foos yi du mus a fees ah. kon daal bu fees ba pare da koy tëj ubbi bee. beneen bi balaa fees. bii dina fekk mu jeex. dara du fa nekk dara du fa nekk. ndax jël nga lépp ba yóbbu ca tool ya. yépp dem na ah ma ne sagal mii kat ku bëgg a suturaal sa njaboot wutal sagal naataange te sagal naataange dina sagal sa njaboot. Mhm. ànd naag jamono set na te sell na. waxuma la dara waaye nijaay dem dus ci àll dafay daal jóge nag. ak sagal nattaange nag dëgg-dëgg set na sel na te sa poos wax dëgg yàlla sa kenal na ko nag. say boo ñu dem nga wutal ma ko nag. am ne maa ngi nii di ko wuti ah! bii du def dara baal fàttaliku bi waay bal ah? fàttaliku baal fàttaliku. ah ko ci moni bu baax daal bu ko jaxase. amul amul mel ni métti. waay fàttaliku yow tam nag. <laughs>